bëri ngay amal ci saay rek baati nekk sëñ Fallu kii ku ko la laaj say ay xaritu yàlla galas galas ah. ñu ne sëñ Fallu kii ku ko mu ne Fallu bàyyi mer nag laa bëgg sëñ Fallou ne ko wëril bëccëg nu mbaam moo fay rëkk sëñ Fallou kii ku ko yaakaar ëllëg kenn du la laaj say ayir Fallou defal moo ko fi romb fa Touba Sëñ Fallou defal wax léegi moo woote ubbi jumaa yi julli ah tey ku ko neex mi ñagal Sëñ Fallou kii ku ko yaakaar ëllëg kenn du la laaj say ayib xaritu yàlla dalal defe Sëñ Fallou war naa mooy borom ni ndee defe Sëñ Fallou war naa mooy borom ni ndee ay seen àndukaay ñëpp lay bëggee mooy borom ni ndee Serigne Abdou Karim ñëpp lay bëggee mooy borom ni lay bëggee lay am fàllu doy na ñu nekk ñëw na xéewal yi doy na ñaan